wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo yu bees yi alhamdulillahi waliyu saalihiina wal aaqibatu lil muttaqiin falaa udwaana wa xabibina muhammadin sallallahu alayhi wa ala wa sahbihi ajmain mbokki jullit yi ñu ngi sant yàlla suñu borom tabaaraka wa taala di ko dimbandikoo ñu ngi seede na amul benn buur bu ñu war a ci amu ci dëgg budul yàlla ilaha al awalina wal axirin ilahun fi l ardi wassama moom rekk mooy buur ñu ngi ko koy seedeel di ko nangu te di ko màggal di gëm ne yàlla rekk ay buur kuñ ne buur nga am na lu mu la jox tuut ci nguuram gi waaye bés ngay ñëw rekk mu daldi ko nangu benn mu jël ko fekk yaa ngi dund walla mu jël ko fekk jox nga gannaaw àdduna ba faw moom nag mooy buur bi nga xam ni moo fi nekkoon démb balaa tey moo fiy nekk itam suba moo fiy nekk ca anamu dappet moom rekk mooy buur kon ñu ngi koy màggal di julli di sëlmal ci yonentam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallama muhammad ibni abdillah nga xam ne julli ci moom ak njaamu yàlla la dana la jural yiw boo xam ne yow man nga ci gore tey ak ëllëg bés dafa yéeg ci miin minbar bi nii ne amin amin ñetti yoon ne tekk ñu ne ko lu tax nga ne amin ma bàyyi ñaare tudd benn bi mooy toskare na koo xam ne dañ ma tudd fi moom te julliwul ci man sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain moo yonentub mujjug jamono di yonentub xeetu lislaam di nga xam ne moo mujj ñëw waaye mooy njëkk a dugg aljanna xeetam ñoo mujj ñëw waaye ñooy xeet wi njëkk a dugg aljanna alhamdulillahi rabbil alamin ci ngëneel googu ajjuma ji mooy ñeenteelu ajjuma ci suñu weeru koor 1445 su dee ci alxamariya mu nekk 2024 ajjuma ji sikki sàkk amul ne moo ciy mujj lañ ci def yépp ci njaamu yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul waay yàlla nañu ko yàlla fulandil insha allahu dencal ñu ko fa moom koorug ren yàlla bu mu nekk suñ mujj koor balaa koor gi dellu si waat xeetu lislaam ñi ci am jafe-jafe jëpp yal na yàlla xettali leen yal yàlla taxawu leen rawatina suñu suñ mbokk yi la nekk ca Filistin al muhtalla yal na yàlla xettali leen waaye yal na yàlla dimbali leen yal na yàlla dëgëral leen seeni noonu yal nañ na ba faw incha allahu suñu xutba tey dañ ko fas yéene tënk ci ay tomb bi ci jiitu mooy danañ am benn taxaw seetlu ci diggante toujours ñaari jëmm muy diggante Muusa ak Haarun waaye diggante Daawud ak Taalut Jaalut waaye itam ñu wàccewaat ko diggante Ousmane Sonko ak ki nga xam ne tey moom la yàlla teg ci bopp réew mi muy Mouhamadul bashir Faye te gaa yi di wax Bachir Jomaay mu ngi noonu suñ fa bàyyeekoo danañ ñëw ci li ñuy tuddee tansibu rais wal yamin ad-dushuri muy investir bi ñu ko doon investir semaine bii waaye itam ngëñ la nga xam ne doon na ko gëñ ñëpp di ko seet <clears throat> ñetteel bi walla bokk ñetteel bi mooy ku wuutu aw nit nag nañ doon toogee faaw nga jëm ca amuk càmbar muy mën nañ ko tuddee état des lieux walla ak nuñ ko mën a tuddee ñeenteel bi moom nag bokk na ci la mu déclaré mooy daa fas yéene taxaw xeex ger ak bépp forme bu mu am yal na ko ci yàlla may ndam juróomeel bi moom la ñuy tëjee muy lu ñuy tuddee asaka yi muurum koor incha allah loolu mooy nekk suñu xutba borom bi tabaraka wa taala dafa bokk ci xikmaam te ndaxam arab dana koy faral di wax sax mooy al insaan daifun bi nafsihi waaye na qawiyun bi ixwaan yi nit moom rek day néew doole day yëg ak wéet waaye su toogee walla ma taxaw gis ay mbokk wër ko da gis ne fitam dana gën a dëgër loo xam ne su doon moom rek la du ko man danga gis borom bi tabaraka wa taala di nettali aw nit ci suuratul baqara nettali ya nag dafa bari trop ñun dafa am rek luñ ci jukki lu tuuti dal di ci joxe ngir man ci tegtaloo li nga xam ne moom lañu bëgg a waxtaanee fa qaala lahum nabiyuhum inna allaha qad ba'asa lakum taaluuta malika te ñoom dey dañoo bëggoon yàlla yónni ci ñoom ab waay boo xam ne mooy nekk njiit di leen jiite ngir ñu mën a taxaw ci seen kanami noonu yàlla dana am ku ma leen yebal mbaa su ma ko yebalee du ngeen deltu ginnaaw ñu ne déedéet ba yàlla yebalee ci ñoom kooka ñu daldi di daw yàlla ne inna allaha qad baasa lakum taaluuta malika danaa leen yebalal ku ñu wax taaluuta mu nekk buur taaluuta moom ak daawda dañoo dundoon waaye gis nga doomu aadama yi toujours dañuy xaw di doy waar moo tax alquran ne ñu ne ko annaa yakunu lahu lmulku alayna wa nahnu axaqu bil mulki minhu ndax walam yutta saatan min maal kii noo koy tànni muy mu nekk njiit mën na nekk buur wala amir wala président comme ni ñu koy déggee te ñun ñoo ko gën a yeyoo jiite amul alal kon ñoom daa mel ni dañ jàppoon ne njiit moom ki koy def mooy ko am alal yàlla ne déedéet facteur yooyu waralul ñu yónni njiit mooy inna allaha astafaahu aleykum yàlla ko tànn jiital ko ci seen kanam wa zaadahu bastatan fi l ilmi wal jism yàlla may na ko ci xam-xam ak ci wàllu doole yaram loo xam ne yéen amu ko doole yaram jooju nag mën na nekk jëmm ju ju mën na nekk jëmm ju jëmm ju tuuti li tax mën na nekk jëmm ju tuuti xeetu yonente yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam gannaaw moom ki ci ëppoon kàttan mooy aboubacarin siddiq te aboubacarin ñépp ne ñu jëmmoom jëmm ju tuuti la woon bal ni mu doon doxee sax daa xawoon a jeng mu daldi ci teg ne wallahu yuti mulkahu man yasha wallahu waasiun alim nguur nag na ngeen xam ne yàlla mooy seet ka ko neex mu jox ko ko ci wàllu yaatu xam-xam daje lépp kan moo ko yeyoo ak kan moo ko man kan moo ko mënul ko kenn rek moo ko méngoo muy borom bi tabaraka wa gis nga ba loolu amee ca mujj ñu tëb aaya ya borom bi tabaraka wa taala da koo tëjee ne fa hazamuhum bi iznillah fa hazamuhum bi iznillah te bu ñuy xool ñam ñi waroon a jàkkaar lool ëpp nañ leen daanaka ñaar fukki yoon jëm fanweeri yoon waaye nag bi yàlla ne kii la jiital topp leen ko su ngeen ko toppee da ngeen am ndam lu mu ci teg mooy fa hazamuhum bi isnillah wa qatala daawudu jaalut daawuda moomu ñu doon xeeb mu nekkoon lu ndaw ci seen biir jaaluuta yàlla mu ko reyee ci moom mu tekki ci ne wa aataahu llahu almulka wa allamahu mimma yacha ba laaya yooyu jeex boo ko toppee itam ñëwaat ci dundu muusa alayhi salaam danga fa gisaat kere bi ko yàlla ne idhab ila firawna innahu tagaa dañ lay yónni kat demal ci firawna ndax buur bu jéng la dana ko yàlla isharax li sadri dama bëgg nga ubbil ma sama dënn mu yaatu ndax njiit fàwwu dënnam yaatu wa yassir li amri sama mbir na ko def mu yomb waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli sama làmmiñ amoon ab gàllankoor ci mën a wax dama bëgg yow yàlla loola dëñ ngir ñu mën a déglu samay wax ndax fa la dana ko nag wajal li waziran min ahli dama bëgg nga ci sama mbokk yi nga utal ma ci ab ministre boo xam ne moo may dimbale ndax fa la yem wataa mënoon a yem foofu waaye dana ko nag haarunu axi xam naa loolu mën nañoo xam ne daa proposé yàlla ne ko ah haarunu mii day sama mbokk la usdudu bihi azri wa ashriku fi amri dama bëgg nga dëgëralee ma ko boole ko ci mbir mi kay nu sabbixaka kathiran wa naskuruka kasira balaaya yooyu jeex ci suuratu taaha nga tëb lu bari bàyyi ko ñëwaat ci suuratu qasas ba ko yàlla yónnee itam bokk na ci la mu ko wax mooy wa axi haaruunu sama mbokk mii di haaruunu day wa afsaxu minni lisaanan ci làmmiñ moo ma gën a am yéwwiku wala tekkiku ci làmmiñ fa arsilhu maaya ridan dama bëgg nga yónni ko ma ànd ak man yu saddiqu nii su àndeek man di ma dëggal ndax inni axaafu an yukadibuun damaa ragal soo ma yónnee su ma demee wax dañ may weddi yàlla wax ko lu am am solo loo xam ne mën naa wax ne histoire yépp moo taxoon ñu indi ko mooy sana suddu daka bi axiik danaa dëgëral sam bi ngay jëlee décision di def ak a bàyyi ci sa mbokk mi di Haarun waaye itam wa naj'alu lakuma sultaanan ba laaya yooyu jeex yooyu boo ko xoolee dalay xaw a niraleeg toujours ñaari jëmm yi di sëñ Ousmane Sonko ak ki nga xam ne tey moom la yàlla teg ci réew mi xam nga ñu bari da dégg ndax am waxoon nañu ci si gannaaw sax ñu naan amul expérience wala mosula jiiti lii wala lële ma ne borom expérience la ñoo ñu indi fii ñoom nañu dandu jéggal nañ leen uti koo xam ne amul expérience léegi-léeg nga dégg ñu ne wax bi maanaam liy feeñ day feeñal aw làmmiñ ci Sénégal ma ne loolu ndam la ndax sénégalais même saalum saalum boo xee da nga xam ne kii saalum saalum la bu dee joor joor bu dee nàngam ñeneen ñi itam xaal pulaar su waxee wala séeréer su waxee da ngay xam ne kii moo wax ndax làmmiñ wi ak wi ngay waxee du benn ma ne kon loola du kese amaan na nag li tax ñoom ñaar yàlla boole leen te wallahi loolu lañuy mébét di ko ñaan mooy la nekkoon ci diggante Muusa ak Haaruun waaye diggante Daawuda ak Taalut loolu la ñuy ñaan yal na yàlla sottal ko ci ñoom ñaar mooy ñuy dëgëralante di dimbalante te yaakaar naa na ñu bare bari ñu ngi bàyyi xel loolu lan moo tax ma wax ñaanal leen mooy benn boroom xam-xam dafa wax mu ne su fekkoon ne benn ñaan rek laa am ci kaw suuf yàlla di ma ko nangul benn ñaan rek mu leer ma ne benn la mu ne damay xool ki ñu jiite ma ñaanal ko ko mu ne ndax ki jiite gaal gi walla ki jiite li ñuy wommat soo ko ñaanalee mu mucc su muccee ñëppay mucc waaye soo ne na alku sa alku foo jëm loolu boo ko xoolee ak suñu réew mi ñuy tuddee suñu gaal xam nga Sénégal dañ ne mooy sunu gaal kon suñu gaal ka nekk ca kanam wax dëgg yàlla di ko di ko wommat di ko xëcc wala di dawal kooku ñëpp war nañ koo ñaanal mu def ndànk dem ak jàmm ba àgg mën a teer ci jàmm ak salaam loolu yal na leen ko yàlla defal. yaakaar ju rëy rëy nag la nit ñi am ci ñoom <clears throat> comme niñ ko xamee. loolu moo tax yaakaar jooju laa budda ñu dimbalee leen ci ñaar bi ci jiitu mooy ñaan ndax adduaa yanfau mimma nazala wa mimma lam yanzil kuy xeeb ñaan danga koo xamul beneen bi mooy ñun ñëpp nag ñuy taxaw di defar tey bañ di yàq boo amee njiit li gën a baax te askan wa baaxuñ wala ñu yàq ak lu mu yàgg-yàgg échec rek kay am loolu nag yàlla bu mu am kon ñun itam nañu góor góorlu li ñu war ci liggéey ci tabax ci nangam lu baax niñ ci taxaw beneen taxawaay bi mooy fal nañ ko jox nañ ko lénge yi jiite na lañu ci gën a bàyyi xel nag mooy ngëñ ga <coughs> ñun dey wax dëgg yàlla buñ sañoo lii su weesoo képp ku ñu falati ci réew mi ngay jullit booy gañ na nga gën ci lislaam xam nga nit mën na gën ci lu dul lislaam ñeme yàlla la muy gën du ko def waaye boo gëñee ci lislaam mu leer ne li nga gën nga ñàkk koo def sax toroxtaan dénk ci dana am loo bàyyi xel kon wax dëgg yàlla doon nañ mébét lool ngëñ ga di ci lislaam waaye na comme weesu na muy door a ñëw ñu ngi koy yóbbante ëllëg mu def fi loo xam ne su fi bàyyee koowee wala suy toogaat ëllëg ngëñ ga ci lislaam lay doon loolu yàlla ko yàlla def waaye ba mu fa bàyyee koy ràngal nañ ko am mbir moo xam ne dëgg-dëgg da ngay gis ne ñun suñu état bi dëgg-dëgg neexul ba ne waaye état maçonnique la ndax lay si te daal baaxut yàlla ko fi yàlla jëlee waaye magam jëm wala kilifa goo xam ne fukki million ak juróom nangam yaa leen jiite ñu jëlu caq di la ko takkal te ku nekk xam ne ne boo ne jàkk caq bi da ngay gis caq yi ñu doon takkal franc-maçon yi loolu moom ñu ngi ñaan borom bi tabaraka wa mu dëñ fi jóge fi ak jàmm ak salaam ka ñuy jiite même suñ koy jox drapo bi sax ñu ne ko drapeau bu sénégalais ngi nii mu xam ne kon dañ koy jox drapeau wala dañ koy jox leneen waaye ñu bañ koo takkal loo xam ne day màndargaal franc-maçonnerie te dégg naa benn waay bu wax lu am am solo lu jar a bàyyi xel mooy pale boobu dafa jara a bàyyi xel war nañ koo defar war nañ koo raxas ba mu set mu ne damaa jàpp ne danañ fal sax nit am ci moom yaakaar lool mu ñëw nekk ku dëggu waaye njaber gam fay fekk ak jaamu xërëm gaag yu ni mel loolu sax mën na koo mën na koo dévier loolu nag lu muy wund mooy sénégalais ku ñu am yaakaar su ñëwee rek day dem ba mu yàgg rek mu mel ni yaakaar ga dafay tas loolu yàlla bu mu amee fii kon loolu jar naa bàyyi xel beneen bi itam mooy lu ñu tuddee état de lieu mooy comme Sénégal nag am na ci loxool ku mu nekkoon mu amoon ay ministre joxoon leen ay ministère ak i directeurs généraux joxoon leen ay direction ñu nekkoon fa ba bàyyeekoo fa te dañ leen doon jàmbat dem ba yàgg seen nekki neexul ñu ne nañ fi bàyyeekoo kon war nañ bàyyi xel ñooñu seen toogin nan la woon lu ci nekk ñu daldi ko ñu daldi ko càmbar foofu ngay gisee ne yàlla rek ay buur démb danga ci gis benn ministre boo xam ne bi ko waa OFNAC woowee daa bañ ñu xëy dem gis ko bari barki démb mu waaxu demal boppam boppam OFNAC te fi fialan ragal naa bootul ñu bari danañ dal di dem ndax amaan na li la doon protésé doon la aar démb loola moom loolu moom lu won ni la te senegal li ñu wax ne moom lañ fi randal ci ay milliards bu dellusi woon ndaw yi ñi xuus géej yi di dem di fa des ñu bari danañ mën a toog ci réew mi te am liggéey hôpital yi nga xam ne paj gi sooke na lool dana am solution ak leneen ak leneen kon milliards yu ñuy wax nga xam ne soo ko doon ay téeméeri téeméer la wala ay junni junniy milliards te ñiñ tuumaal ñu ngi fi suñu demee topp leen ci yoon ba xam ne ñooma nañ ko indi si moom itam ubbi na bunt bu ama am solo ndax itam tëj du solution su fekkee dem nañ ba gis na yow yor nga ñu ne la indil la nga yoroon nga xam ñu man si comp sax jox la wala ki la boole loolu mën na nekk solution parce que lu xànk siyaas yi la maanaam nit ki ñawam ci wàll politique lii la jur te loolu miinuñ ko woon lañ xamoon rek mooy tëj tëj nañ la bàyyi nañ la génn nga léegi alal ja nga yoroon lewal nga ko dem na loolu musiba la kon taxaw bi ñuy taxaw itam pour gëstu ñooñu seeni am-am ñu siwaat ko loolu lu jaadu la wala ñu laaj leen lii ngeen am fu ngeen ko jëlee loolu lu jaadu la moo tax li ñu tuddee CREI yi dañ ne luwaahu jamono da koo dàq waaye Seydina Omar ibnul Xataab radiyallahu anhu moom CREI yi ci moom lañ ko jëlee da daan fal nit nga ñëw am dara mu ne li nga am foo ko jëlee nga mën a taxaw fii laa ko jëlee lay ko su dul loolu danga am jafe-jafe kon loolu. warees na koo bàyyi xel beneen bi nga xam ni itam am na muy déclaration bu mu def pour xeex lu ñu tuddee guerre muy corruption kooku moom dañ koy ñaanal yàlla ne yàlla na ci amuk ndamwaay ndax itam na gis nga suñu réew yi daanaka li ko yàqu mooy guerre dangay gis benn tali ñu ne dañ ko war a defar masalan budget bi nekk na fanweeri milliard ñoom diw sàngamin ñoo ko war a defar gannaaw boo xamee ne am na offre ak demande jaar fa mu war a jaar ci yoon waaye loola war a dugg cib tali bala muy yegg si ñi jaar fii dagg fii dagg fii ba finalement trente milliards yooyu ba waatul sept milliards mooy mujj yegg loolu gisoon nañ ko ci tali Kawlax Dakar bi fi amoon jamono bële ki ko waroon a tali ne na man nangam lañ ma waroon a jox dagg nañ ko ba finalement bi may jot nangam laa jot loolu moo tax tali bi mu jul baax loolu mu wax nag ci tali secteur boo dem loolu moo fa nekk kon xeex gi ci ger moom wax dëgg yàlla danañ ko ci jàppale lool danañ ko ci ñaanal yàlla mu am ci réussir te dafa war a am nag su dee ci état de droit loolu moo war a am loolu moo jaatu da ngay xool réew mi di France nga xam ne su dee ci wàllu démocratie Sénégal suy waxtu su day dellu ci France waa ji fa toogoon bàyyi ko fa kii door a toog wala boo kii nekk ñaareel xam nañ ko de muy Nicolas si gis nañ ba muy def campagne ku jëloon as xaalis jox ko ko ñu dem ba mu yàgg loolu feeñ fan la mujj dañ ko jàpp looloo jaabu dañ ko jàpp te moo jiitoon France waxuma am ministre wala nangam moo jiitoon France waaye dañ ko jàpp boo demee sax ci gën a kowe états ka fa nekkoon bàyyeekoo fa Joe Biden mi toog muy Trump ñu bari dañ jàppoon ne élection yii di ñëw moom moo ko war a gañe ndax moo fa ëpp shaabiya waaye dem nañ ba gis ci yoon ne gisal nañ ko benn kàmb boo xam ne soo amusaa mën na gàllankoor moom dootul nekk candidat ba sax loolu mën naa jur ñu yóbbu ko kaso te ñaata yoon lañ ko woo di ko laaj ma ne kon réew yooya su fekkee ne ñoom duñ jullit fonkee ni loi ak yoon ñu ñii jullit rawatina doo ci yem waaye demal Afrique di sidd seen ki jiite assemblée bi soxna si ko jiite nga xam ne 2014 ba 2020 moom moo nekkoon al difaa moo yore woon force des armées fi mu ne mu jiite assemblée assemblée ci réew ku nekk xam na ko bu doon Sénégal tey dañ naan njiit li su fi nekkul ah, ki jiite assemblée bi moom mooy toog palaasam yaakaar naa ñun ñëpp xam nañ loolu waaye ànd ak loolu lépp lañ ko tuumaal ci ger ak jël alalu jàmbur jël lu mu jël ci état bi moytu na nag tëral ay loi lu ne ngir daw bu mu àgg ci yoon waaye ba waatul fa muy mujj dana dugg kaso te lu mu néew ne mën na faa def fukki at ak ñeent waaw bu fekkee ne yow dañ laa dénk ñépp wóolu la nekk sa ginnaaw nga jël def sa poos wala nga jël rawale kooku amatul benn dignité amatul benn honneur war nañ jëflanteeg moom ci xuwa bala mu am amul fayantoo amul dara waaye nag la mu yore te yoreel ko mu ñëw delloo leen ko yonent bi sallallahu alayhi wa nee na laana allahu rashi wal murtashi fi lxukmi yàlla rëbb na dàq na ci yërmandeem soril na képp koo xam ne day ger walla ñu koy ger ci at lii lu doy waar la fil xukumi gisa fam ko gawi mooy ci at moo tax ger moom yàlla na fi daldi bàyyeekoo ba jeex tàkk te su fi bàyyeekoowee kuy liggéey dangay ngay jàpp ne man su may liggéey danaa am su ma sonnee danaa am loolu nag day wootal ñëpp ci sonn di dox di liggéey su ko defee li ñuy faral di dégg mu xaw ma toog muy dox wala la cay la cay topp loolu daf fi bàyyi koy ku liggéey da am ma ñëwaat ci ñoom ñaar jeexalee ca ne amaan na waaw yàlla nag moom mooy defee mbiram nu ko neex waaye amaan na wóor gi ñu wóor jaar fa ñu jaar ba génn fa te mënuñ leen a joxal dara joxoñ dara amaan na moo tax yàlla tàggatal leen askanu Sénégal ci nii mu leen ko tàggatalee am na lu ñu ci waxoon loolu duñ ci dellu si waat loolu nag dañ ciy nettali benn wax boo xam ne Ibnu Aqil moom ak boppam moo ko nettali mu ne dafa aji woon ci biir aj gi bi muy wër mu for fa benn caq bu xonq boo xam ne oor la nee na caq bi li ci nekk caq beeg boppam or la waaye li ci nekk ci biir ci or kenn xamul lu mu toll nee na fekk am genn góor goo xam ne moo ko moomoon mu ngi yëgle naan am na lu ma réerle ku ko for soo ma ko indilee danaa la jox lu bari nee na bi mu wëree ba taseeg moom mu daldi jël takk bi jox ko ko nee na góor gi daldi yëkkati alal ji pour jox ko ko mu ne ko déedéet waruma koo jël ndax la ma waroon mooy far naa ko ma seet boroom comme gis naa borom ma delloo ko ko góor gi ne ko jëlal alal ji mu ne ko déedéet góor gi daldi waññeeku mu ngi dëkkoon foofu ñu tuddee Sham ci bërëb bu ñu tuddee Xalab moom itam nee na bi mu ajee ba ajam jeex mu war a wàññeeku jëm Baxdaad waaye nag mu jaar Filistin ci alxudsu sharif bu mu ziyaaree ba pare ci jàkka ji nee na keroog la weeru koor wi teru ñu war a commencé woor nee na xam naa gars yi bi ñu la ko jàkk gis melo wi ñu gis ci moom melokaanu diina ak melokaanu baax bi julli jotee ñu ne ko taxawal nga jiite bi mu jiitee baat bi ne ak alquran ji ñu ne ko ñun kat suñ imaam bi semaine bi ci la ko yàlla jël dañoo bëgg nga des fi ak koor gi di ñu jiite alquran di ñu tafsiral mu ne waaw loolu de man naa ko mu commencé jiite di jàngale alquran ba mu yàgg ñu ne ko ah suñu imaam bi kat bi mu fi bàyyee ko am nas ndoom su jigéen suñ fi bàyyi woon soo ko bëggee mën nañ koo dox incha allah ñu may la ko ngir imaama gi gën a mat ci ngiru Maalik mu ne d'accord na ñu dal di ko may xale su jigéen sa nee na mu nekk ak moom ba yàlla dogal mu jëlee ci ëmb bi mu imbee am doom bu jigéen ci jamono boobu nag mu imbee am doom bu jigéen yàlla na too ko wér gi yaram ca wér gi yaram googa moom soxna si ci la yàlla di jëlee bakkanam bakkanam waaye bi mu feebaree noonu ba feebar bi métti boroom kër gi ñëw di ko di làmb yaram bi noonu di ko ñaanal daa dem ba mu àgg maanaam loxo bi àgg ci doq gi mu gis caq bi xool ko bu baax ne ko yow dafa mel ni caq bi ca aj ga moom laa foroon de ndeysaan soxna si daal di jooy mu ne ko sam bi mu ajee nee na caq bi réeroon na ko fa mu gisoon fa jaamu yàlla bu baax a baax boo xam ne moo ko foroon jox ko ko sam nag diir yi mu fi dundaat yëpp da doon ñaan yàlla jaam bu baax booba yàlla tàggat ku mu ñëw ba takk ma kon dafa mel ni yàlla nangul na ko ñaanam yàlla jël ruuxum mu faatu moom borom kër gi ñu war a miraas soxna si mu war a jël alal ji jël alal ji jëlaale caq ba wala caq bi fi mu ko fa doon démb ca kaaba ga waaye comme moomul ko mu ne du ko laal yàlla mi nga xam ne mooy tàggat tàggatal na ko ba mu jot ci caq bi am fa soxna am fa doom waaye lépp tegee ci yoon bu leer naññ boo xam ne yépp jaamu yàlla la amul bàkkaar yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ne ku bàyyi mbir ngir yàlla yàlla remplacer la lu ko gën amaan na ñoom bi ñu nekkee impôt ak domaine mënoon faa jël lu leen neex te jëluñ ko est-ce que du loolu moo tax yàlla remplacer leen ñu yilif impôt ak domaine ak waa tubaarkàlla ndax du loolu moo ko waral li ñu jeexale mooy asakay muurum koor ci ñaari minit yonent bi sallallahu alayhi wa moo ko waral ci xeet wi ci góor jigéen mag ndaw gor jaam Usmaan ibnu Affaan sax daan na def ëmb moom da ko doon génneel muurum koor muurum koor nag génne ko am na ñaari waxtu am na waxtu wu dagan am na waxtu wu gën waxtu wi dagan mooy suñ ne suba wala gannaaw suba ñu korite nga dal di ko génne joxe ko loolu dagan na dagan na waaye baax na trop nag surtout bu fekkee li ngay génne dund la war ko jox ñu ñàkk ñi ñu war ko jaay ut ci yére wala ut ci ndugg loola moom baax na lool bi gën mooy nga bàyyi ba ñu ne weer wi feeñ na soo xëyee ci suba gi bala ngay julli ji nga génn foofu muurum koor nu muy toll boroom xam-xam yu bari dañ gis na ñaari kilo la muy deux cent quarante grammes maanaam ñaari kilo ak liibar yu manqué tuuti ñii ne déedéet ñetti kilo la ixtiyaatan ku def loolu def nga la la war amaan na ba teg ci sarax waaye daal li li nga xam ne daal mooy li mooy deux cent quarante grammes la maanaam ñaari kilo ak liibar yu manqué tuuti ndax nit ki mën na ko joxe ci alal li doon cosaan mooy joxe ko ci lu ñuy dundee moo xam ceeb la wala dugub la wala tàndarma la wala abu xanifa rahimahullahu taala ubbi woon buntu moom di ko joxe ci alal mu ne joxe ko ci xaalis mënu na boroom xam-xam yi nag am nañ ci ak xëccoo lool démb ak tey waaye yàlla xam ne ne ku bàyyi xel da nga gis ne joxe ko ci alal ndax am maslaha la de parce que buñ ne dañoo xëy pour julli ji nga xool xiir bi jox ko ay dugub jox ko ay kiloy dugub wala kiloy ceeb mu war ko jaay pour dugg si loolu du yomb boo jëloon nag lu tolloog moom ci alal jox ko ko moo doon gën a yomb day mën a dem dugg ji ndax maslaha mi kat ajiwul ci yow mi koy joxe waaye ki koy jox la loolu moo tax boroom xam-xam yu bare bari d'accord ne muurum koor manees na koo joxe ci alal la nag ci ki nga koy jox waaye njëriñ la ci yow mi koy joxe ndax dana la laabal ci jamono koor gi ci lépp loo xam ne manqué manqué la woon yàlla na ñu yàlla laabal yàlla na ñu yàlla setal yal na yàlla mottali yàlla na yàlla nangu wa ma dalika ala allahi aziz ñi nga xam ni itam ñoo ñu jiite jiite réew mi bu yàggul yàlla na yàlla may leen ndam julli ñëpp war nañ bi ko ñaan bu ñu amee ndam ñun ñëpp ay am ndam suñu amul ndam nag senegal mooy gën a deltu ginnaaw rek wala du avancé kon yal na yàlla may leen ndam yal na ci lislaam jëlee ndam ak tedd nga yëkkati ko ba faw wa ma zalika ala allahi bi aziz allahuma ala muhammadin wa sallim qul inda allahi xayrun min allahi wa min attijaara